2 mars 2020 la ñu amoon fii ci réew mi kaabu njëkk bi ñu am ci Covid 19 boobu ak léegi bés bu jot ñu taxaw ak yéen pour jox leen situation wu bés bi di ko def ak leer di ko def ak dëgg di ko def pour que dara bañ leen ci ëmp boobook léegi nag def nañu weer. parce que tey la le 2 avril 2020 ma ànd ak ñenn ñi gën a ràññeeku si ñi si liggéey ñu war a ñëw taxaw fii wax ak yéen docteur Ablaye Bousso bi xamante ne moom mooy directeur bu centre des opérations d'urgence sanitaire mooy njëkk ñëw waxtaan ak yéen si mbir bi bu paree docteur Alpha Sall directeur de l'Institut Pasteur de Dakar moom itam dana ñëw waxtaan ak yéen ci mbir mi ci li ko jëm li jëm ci moom bu pare professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse de l'hôpital Fann dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci paj mi bu paree professeur Mamadou jaara Bey directeur SAMU national dana ñëw tam waxtaan ak yéen ci lépp lu jëm ci prise en charge ci wàllu réanimation ak lu si jëm seen communication nag ñooñu li ko dox jog mooy leeral bokk leeral lu bëri parce que def nañu weer dafa jot ñu def lu ñuy wax bilan à mi-parcours parce que weer wu jot rek bëgg nañ yéen waxtaan seeg yéen di ñaan dëkk mbir mi gaaw fi yem pour que ñu delluwaat bu baax a baax a baax si suñu yitte ci suñu tayaayu xel avant ma leen di jox kàddu gi dama bëgg a taxaw bu baax encourager leen personnel de santé bi li ñuy def wax dëgg yàlla sagal nañ réew mi ñu ngi leen di encouragé di leen wax ne président de la république mu ngi leen di félicité di leen encouragé may remercier di féliciter la presse sénégalaise parce que mbir mi ba mu commencé ba léegi wane nañ ci professionnalisme responsabilité ak xarañ bu wóor ba tey dara umpul sénégalais yi ci li ñuy liggéey loolu laa ne woon danaa leen ko wax di leen gërëm encore une fois de demander le docteur Abdoulaye Bousso, directeur